c'est pas un double jeu diplomatique. Non, non, non, c'est pas, un, pas un double jeu diplomatique. non, non, <laughs> c'est un opposant, c'est normal. Damane, ah. la diplomatie de ce pays, Sénégal, la diplomatie, ça va commencer d'abord Sur suñu dokkandóor dori. Damane, diplomatie bu diplomatie de Bouba. day commencer par tes voisins il faut que nga déggoo avec tes voisins dem ci bitim ci intégration africaine. c'est comme ça. réconciliation africaine mais Ousmane Soko a toujours prôné un discours panafricaniste. il a toujours prôné un discours panafricaniste Ousmane Sonko yagna un am du jubóole les peuples africains mais il est plébiscité partout en Afrique. Ousmane Sonko, des gens le voient comme un Thomas Sankara, un Patrick Lumumba, un, Nelson Mandela, je ne sais pas quoi. Hmm. Maintenant, si vous faites que tu dem na bafal wala parti au pouvoir. Mais les peuples africains attendent beaucoup de lui. Attendent beaucoup de Pastef. Pastef aujourd'hui il faut unifier son discours. Yobu son discours Foukawe. Moi, mm. maintenant, partout dans la zone, en Afrique, dañoo bëgg partager seen idéologie ça aussi il faut ngeen xam ko que dafa bëgg partager son idéologie par rapport au reste de l'Afrique c'est-à-dire que bëgguluñu yemale seen idéologie fii kese au Sénégal parce que dañoo jàpp ni que seen idéologie moo leen yóbbee tey ba ñu am réussite boobu réussite bu ñu am tey au palais mais maintenant bu fekkee seen idéologie moo leen yóbbuwee tey ba ñu am ndam nekk au pouvoir ils sont obligés voilà de bëgg partager cette idéologie ci ci en Afrique. Hmm. moi mu parce que Mali dem Niger dem Burkina dem Guinée Conakry lolo il y a un message dafa Ousmane Sonko dafa un message bu lancer. de message. gis nga gis nit moi, tu es en train de le juger sans le connaître. Hmm. est-ce que comprendre Dis-ben hmm. parce que fallu essayer de convaincre mënul ne ah qui bay ko qui changer mais si vous êtes en train de juger cette personne là sans le connaître donc il faut am fallu comme nous convaincre mais au su de mën convaincre cette personne là on juge pas une personne comme ça Le CDAO échoué son, comment on ko réussir avec son parti passif où est le problème mais enfin pour yi jur Mali euh, Guinée Conakry ak Burkina Faso personne n'encourage nit musul euh, dama d'amener personne n'encourage le putschiste Quel kenn musu hmm. coup d'état militaire Donc quel mais coup d'état bou coup d'état militaire il faut que les gens s'interrogent et se posent les bonnes questions man ah. il faut que les gens amènent l'État coup d'état bi pourtant l'État coup d'état bi am hmm. ces pays là la CDAO était là la CDAO mënoon na pas empêché mais la CDAO a décidé de fermer les yeux la CDAO a décidé de fermer les yeux au Mali quand Ibrahim Boubacar keita faisait ce qu'il voulait la CDAO a euh, comment voulu fermer les yeux Alpha Condé à Guinée la CDAO en a fait ainsi au Burkina ainsi au Niger et failli le Sénégal. Et il a failli le faire au Sénégal si la population n'était pas mature. La CDAO Filatao, la au moment les moments difficiles de ce pays au Sénégal Mo taxaw def ñu def seen magu bu sommet voilà juger affaire au niveau des instances de la CDAO. au lieu la CDAO mu jël des décisions fortes Moné, ne muy xalamal Macky Sall ne ko tas bi nga tas parti Pastef boobu baax na na ba pare ne Ousmane Sonko yow kenn tooñu la loolu lañuy ñuy jubalee ñaari ñaari ñaari ñaari doom ñi xex mais il faut mu ñaari dom yi xex loolu lañuy ñuy mais c'est pas comme ça. ah il faut ñu àtte nak mota mané la lu coup d'état yi la CEDEAO mo provoquer ces coup d'état là parce que à un moment donné les populations en Afrique étaient fâchées contre la CEDEAO était fâché contre la CDAO. Alors, clair. À un moment donné aussi, la CDAO n'était pas une institution ou, ou, bien une instance crédible en clair. Afrique. c'est clair. Euh, alors, clair. Il n'était pas une, instance crédible. Mota, Nagis Niti commencé fifou partout en Afrique. sénégalais yi fii taal nañu fii ay pneu defar nañu fii ay cocktail molotov xeex nañu fii xeex bu en Guinée ñoom mënuñu xeex dañoo à un moment donné voilà les militaires ont décidé au Mali c'est la même chose au Niger au Burkina c'est comme ça Mota Manela, il faut pas que les gens japoniques Ousmane Sonko bu demee ou woy double diplomatie c'est pas une double diplomatie une hmm. Fallou c'est pas une double diplomatie ñun ñun ak Mali dañuy Lanté. ñun ak Mali dañuy Lanté. ñun ak Guinée dañuy Lanté. comme ni ñuy Lanté ak Gambie ñun ak Burkina dañuy Lanté. Où est cette slogan de la, du zone de libre-échange en Afrique Où est ce slogan-là Alors, ah, c'est clair, enfin, mais non, donc... Pourtant, Macky Sall a dit une frontière Mali avec Sénégal. Hmm. Macky Sall a fait un accord. Tay Ousmane Soko veut réparer les dégâts que a causé Macky Sall envers suñu suñu natango suñu dokandoor yoyu envers les Guinéens envers le Mali envers le Burkina et le Niger il ne faut pas qu'à base de Macky nous ñu haïr la population sénégalaise. Ah parce que Macky Sall moo fa jot a jaar def fa lu def les mère sénégalais à base de Macky Sall Maliens d'ailleurs dañoo Sénégal à base de Macky Sall à cause de Macky Sall. Guinée yi euh, Sénégal à cause de Macky Sall. tey et yi ak Sonko sont obligés de réparer. cette injustice-là, de réparer ce dégât-là. Euh, réparer à l'économie euh, CDAO.

C'est le des permettre ñu daal di ñëw fii euh, euh, cinquantaine mu daal tam ni itam si euh, sur euh, si euh, si si si si si si si pêche nationaux bi mais aussi 132 mu gën a dooleel pay li nga xam ne que mooy napp gi fii Sénégal daal di wàññi aussi si bateau étranger yi alors restriction des activités de navire de pêche au Sénégal ma ne kon nag état bu Sénégal jël na décision euh, ba ñu daal di wàññi seenu ko tànk suñu géej exactement nouvelle ère afin ban concret ban analyse nga def concrètement par rapport ak pêcherie yi boo ba nag euh, ñi ngi si euh, réseau yi di jubilé et dans d'autres et dans d'autres mais qui defoon ko 55 bateaux étrangers jomaay tey wàccee ko ba 19 19 dix neuf Arfan c'est une baisse très très très conséquente. xama ñom dañu jubilé mais man jubilé au hmm. man teelu jubilé. man du jubilé parce que mesure bi parce que la ministre là transparence la de moo publier la liste des bateaux autorisés à ah, donc euh, à pêcher sur nos fleuves mais c'est comme ça la transparence man d'une part damay la décision courageuse de la ministre des pêches mm. man koy saluer ah. parce que elle a fait là où les autres n'ont jamais fait les ministres de Macky Sall de la pêche le ministre bu monte doon publiés. publier musuñu publier dañuy Tok di ne ni Sénégalais di kaas no jaay nañu ne ñu ciati Ils ni sont musuñu ci transparence tay une dame mo fa nek une femme courageuse et docteur hein, c'est une docteur. en pêche maritime. voilà elle a pris une forte décision avec euh, le régime ils ont pris une forte décision mais ça reste hmm. il faut que nous continuions à enquêter parce qu'il y a des bateaux qu'ils ont autorisés les gens parlent d'une quelconque prête non. ça ah, aussi oui Moi, il faut que nous continuions à enquêter qui brûle ces bateaux là parce que il y a des prêtres non qu'on a donné au Sénégal alors que ces bateaux là sont étrangers maa ngi koy dégg dégg naa ko tey ci presse te aussi man amna naa benn xarit bi ma wo wax ma hmm. waxuma waxuma la même chose waxuma la même chose il y a des bateaux tay ñu ngi zibilé amna ay bateaux yo xamantene sous prête non la mais c'est pas des bateaux sénégalais. donc que Sénégal donc Sénégal voilà. sénégalais euh, mais mais mais mais euh, mais. Euh, mais le malheur du sénégalais c'est le sénégalais. donc la région le dara parce sénégalais ben, sénégalais malien sénégalais mo teg moromom sénégalais métit bo xamanté du jeex ba ila yoomi di ni abadat Sénégal dina métti liggéey. sénégalais mo mel noonu sénégalais n'a fekk na sénégalais du wax kat deug sénégalais mo saña dem lokolo ak ben étranger ñuy dóor moromom sénégalais sénégalais mo mel noonu en fait jikko yi ma cité yépp ci sénégalais mom moko mom moko mom tay dama monsieur nekk ci internet bi ma ne comme aw ma li may def yow sax gis nga ma. Mm. ma ne bàyyi ma dugg YouTube xool actualité mais yàlla daf ma nattu bi ma duggee YouTube dama nekk di naviguer ma dem gis benn coow su ma juumulee benn coow bu opposé euh, Imam Cissé nu mu tudd. Makhtar Cissé non euh, nu mu tudd gambien boobu imam boobu nu mu tudd. té mu nek États-Unis légui xam nañ ko Cissé c'est la. waaw xam naa moom internet yi léegi ñu jox ñu tour bi. Hmm. comme je n'ai pas l'habitude voilà ma gis si sëriñ boobu mu jotee ak Adamo xaw ma Kaliphone mais man dama ne non attends mais ñii lan la ñu mënee nii. non non non juste juste benn parenthèse la. pour ne la pour xamal la naka la sénégalais. yàqee moromam sénégalais suñu temps mais naa euh, ma gis euh, euh, ah. benn jigéen boo xamante ne Adama moo ko fay xama pour mu yàq moromam Gambien mooy Cheikh Ahmed Cissé mm. merci pour mu yàq Cheikh Ahmed Cissé mu jox ko xaalis mais la dame la dafa mujjee récupérer xaalis si sénégalais bi ba pare dem jàppale moromam Gambien bi ñu dóor sénégalais bi regardez loolu leçon la ñuy jox. Gambien yi dañuy nekk di ñu jox ay leçon. parce que euh, sénégalais yi au moment que sénégalais yi ñu nekk di yàqante seen biir Gambien yi ñoom dañoo dem booloo. jël bobu dafa dem bolo ak imam bobu yi yak sénégalais yi. boobu ba légui ñoom ñoo dominé. alors qu'est-ce mais li ça c'est une leçon. la suite décision bi nga xam ni jël exemple daal di assainir quoi qu'on puisse sur nos eaux. maintenant euh, xamal lolu décision bu forte la. Hmm. il faut aller jusqu'au bout il faut surveiller les les les les les côtes là suñu géej il faut que ñu renforcer ay njuntukaay yu bess suñu marine nationale parce que dañoo sonu il faut que nous renforcer un matériel de dernière génération à notre marine nationale parce que c'est le gardien des côtes mm. la marine nationale Nous ñooy les eaux là mais c'est une fois mais l'État euh, comment dire se mettre à la disposition de la marine nationale un hélicoptère hélicoptère bon, comment dire, les radars là qu'est koo xamante ne nga Sénégal nous mën la localiser loolu yëpp dafay laaj liggéey <laughs> loolu yëpp état moo war a jox ces matériel là à la marine nationale je sais que les militaires là ñoom xarañ nañu xarañ ci genre euh, euh, euh, matériel yi bees yi ni te boo leen joxee loolu ñoom mën nañ ko liggéey hmm. ay ay hélicoptère yoo xam dañ leen di jàppale ci liggéey bi hmm. comme les européens le font ay bateau yu bees ay radar ay caméra yoo xamante ne day nekk fii jël ba fële mais c'est comme ça jox leen ay matériel ba ci ay armes ça parce que ay yeneen dëkk yi qui demee ci seen géej la nee taxawal taxawaloo dañ lay rafal. Hmm. oui bien sûr Mauritanie gii nii sax booy booy ci seen géej buñ la bettee ne la taxawal ngay rek dañ rafal loolu lu leer la loolu mooy dëkk bu organiser la. Ah, ben, il est temps que nous aussi comprennent les bonnes décisions. Alors, ñu ñu ñu ah. aussi on prend les bonnes décisions marine alors c'est clair. 30 secondes temps euh, l'actualité peut-être je ni le ministre de la communication dem Bon, ba tey un Cheikh Arfan autorité pour Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay fa nga xamni la venue de euh, peut-être euh, suffit pour en tant représentant justement de de de de de l'État du Sénégal si ça c'est exactement euh, tamit li que est-ce que donc lakalé qui n'a jamais que moo di Bassirou dafa war dafa war déplacé wu dem fa le quand le comprendre ñu leen masoo baax a wa wa waa Walfadjri mais quand même de plus en plus gis neen ki nga xam que moo di Cheikh mi ngi def ay révélation wala kon mi génn di fatli euh, ba ko invité saanu RTS sax que ni nous rôle bu ñu joué si élections bu ki nga xam que moo di il y a ñaari question la. non attends ñaari question la. des questions mooy man d'abord Mike, que euh, mm-hmm. euh, Aliou Sall ñëwam doyul. benn question bi mooy est-ce que tamit Cheikh Niass de plus en plus wala na daal di war a mën a fàttaliku yéegu Bassirou Diomaye fay ak.